d'être candidat à Bamba Dièye dina dem ci jongante présidentielle gu atum 2024 ci bañeeruk FSD/BJ di parti papam ba woon moom nag nee na bëgg na nekk candidat bi nga xam ne dina boole ñëpp dina dekkal yaakaar. bëgg naa doon candidat bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci jamonoy ba léegi. candidat boo xam ne day doxee valeur réew mi. candidat dignité waaye candidat boo xam ne ay jëfam day sàmmonteeg ak i kàddoom. ses engagements et sa parole. Bamba Dièye daal dinay itam ci anam yi institution réew mi nekk laata nag muy xamle ne moom buñ ko falee njiitu réew ci 2024 dina àndepp république gu bees woo xam ne dafay tënku ci méritocratie anam lépp lu doomu aadama di jot daal dafay fekk mu mérité ko waaye itam teg daan képp koo xam ne def na naka sudul noonu waaye itam respecté kàddoom. la question bi jëm ci sunu ay institution dañ koy waxtaanee ba coow dootul amati ci loolu doole bi nga xamante ne itam pouvoir exécutif bi daf ko am dañ koy daal di wàññi yokkal ko pouvoir législatif ak pouvoir judiciaire devra être ki fi nekkoon ministre de la communication nekk saxa ingénieur des travaux publics nekkul nag ab gan ci géew gi ndax nag jot naa bokk ci ñaari présidentielle bokk na ci bi woon ci atub 2007 wa nga xam ne sax moo nekkoon benjamin candidat yi waaye itam ci atub 2012 ba mu jàppale woon saxa njiitu réew ci second tour bi